dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw gannaaw ba ñu leen nuyoo mbokk internet info 221 ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd beeg déglu bi dañuy wax rek ci mbirum hospitalisation bi nga xamante ni Ousmane Sonko daal dina ko def waaye tamit ab grosse bi nga xamante ni Serigne Moustapha Sy jot na ko xamle jamono ji nga xamante ne nag ñi ngi amal gàmm ji moom nag njiital Moustarchidine wala Moustarchidaty jot na décidément xam ne rek ni reste daanaka wax ci rek ci li nga xamante ni mooy dem ci mbirum hospitalisation Ousmane Sonko ci période gàmmu bi Serigne Moustapha Sy ah, jot na nag addu ci ab déclaration bu forte boo xam ne def na ko rek ci jamono ziyaara bi nee na moom doom la ci Serigne Cheikh ah, Tidiane si Al Maktoum na tey jii nekk koo xamante ni dañ ko bëgg bëgg animé moo doon animé daanaka sax ah, ci bile nag gàmmu nee na nag xibaar yu bees la indi jëm ci hospitalisation. bu Ousmane Sonko buñ sukkandikoo ci moom mile mi ngi daal di xam ne rek ne ab mascarade la boo xamante ne dañ ko qualifié ci lu jëm maanaam hospitalisation Sonko stratégie la boo xamante ni membre coalition Yewwi Askan Wi nag saa yu ñu déplacé woo rek ngir ñëw fas yéene rendre visite kii ci Ousmane Sonko foofee ci hôpital bu Ousmane Sonko ci boppam mooy def def ay manière mel ni koo xamante ne dafa feebar ngir rek ñu tere ñoo ñi nga xamante ne nag ñooy leader Yewwi Askan Wi duñ ko mën a gis loole nag nekk loo xamante ni maanaam lu doy waar la ba tax na nag démb ba tey nit ñi wala sax barki démb ñëpp a ngi posé wu la question à savoir ndax su Ousmane Sonko dëggantaan dafa feebaroon wala nag dafa hospitalisé woon ndaxte bu ñu dégloo ci kàddu yi nga xamante ne moom la Serigne Moustapha Sy daal di yëkkati dafa mel ni Ousmane Sonko dara jotut ko woon waaye moom moo bëggutoon a gis nag ña nga xamante ne ñoo koy seet si rawatina nag ñii di leader bu coalition Yewwi Askan yi moom Serigne Moustapha Sy nee na la mu bëggoon a wax jot na ko wax ak moom ba noppi soxlaatu koo wax keneen donc ñoo ko dékkandoo ab fàttali nag ci mois de août ba léegi ni Ousmane Sonko nag moom mi nga xamante ne dañ ko daal di hospitalisé ci hôpital bu ñu ko ci ay prosam situation sanitaire am sax moom ba tey jii dañ doon wax ne rek ne dafa takkati mais dafay gën di sooxe tey ci nag ba jour bi nga xamante ne moom la ñu décidé ngir rek jour ba mu tàmbali jour ba mu jëlee dogal ne day dàkkal xiifam loole ba tey ji nag des na lu leer ci bopp askan ni waaye daal lu Serigne Moustapha Sy yëkkati wax yéeme na ndaxte loolee nag ba buñ ko daal di jàngatee dafa mel ni ba tey Ousmane Sonko dara jotu ko moo doon def ay manigance am ay stratégie ngir bañ a gis ñenn ñi rawatina coalition Benno Bokk Yaakaar noonu nag Serigne Moustapha Sy daal di xamle moom njiitalu pire bile di njiitalu Moustapha Sy di Moustapha nag jot na wax naka ci waxaat ci parti Pastef bi nga xamante xamante ah, dañ ko dissoudre ci jamono ji nga xamante ni ñu ngi doon amal li di màggal bi di euh, féete juddu yonante bu yàlla mus yonante yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la demee wax nag lu bëri dina évoqué wu lu jëm ci wàccaay élection présidentielle yi nga xamante ni février lañ ko ni amal jot nag mi ngi xamle ci autorité yi ñi nga xamante ni dañoo écarté Ousmane Sonko waaye nag bu ñu fàtte ne man mii mën naa prendre relais bi maanaam ah, bu mun na jël nag euh, li nga xamante ni mooy nag euh, relais bi ndaxte nee na lu ñu nu ñu dissoudre Pastef lu dëgg du yoon loolee nag doon na loo xamante ne rafetu kon bu ci njëkk nag mi ngi daal di xam ne rek ne mën na assurer ne ñoom dinañu prendre lii di pouvoir bi dama ko ñoom Ousmane Sonko doon ay cadre du péti Serigne Moustapha Sy la mu xam xamle ci gàmmu jile doon nag lu tiital askanu Sénégal jëm ci mbirum Ousmane Sonko